Euh, jërëjëf ñu ngi daawak euh, recteur May Diaw moom moo jiite université Alioune Diop bu Bambey monsieur recteur tey boo xoolee université bu Bambey jafe-jafe bari na fi coow bari na fi xeex ak xuloo rek moo fi am loolu nan nga ko dundee. Mm-hmm. waaw euh, maa ngi lay remercier ci ci sa question bi c'est vrai que à partir bi ñuy installé nouvelle coordination bi bi doon diriger étudiants yi ci université de Bambey à partir de juin deux mille vingt et au mois d'août 2021 c'est-à-dire euh, trois mois plus tard euh, dañoo forcé ñu dissoudre euh, euh, coordination boobu ndax dañu bëggoon def ay examen au mois de juillet ñu interdire ko par force naan examen du fi amee moo tax ensemble d'université ji jëloon ay décision décision yooyu ñoo taxoon ñu arrêté woon lu ñu doon def bu mois d' octobre ñu reconduire euh, li li ñu waroon def booba. Mhm. kon daal da bëgg wax ni ndongo yi violence lañ fi imposé bañ leen bëggee def loo deuxième deux sessions bëgg indiwaat deux sessions par la violence. waaw bi ñuy bëggee def première session bi ñoom ñoo ko bañ par violence léegi ñu reprendre enseignement yi à partir du mois d' octobre deux mille vingt et un remarque bu ma dem bëgg def foofu. bi mu fi egsee ci kër gi ba léegi diggante mois d' octobre ak mois euh, de décembre bii li ñu jàngale ci temps mus ñu ko def ci université bi depuis bi mu nekkee fii ñaari fan yu ne amoon na ay mouvement grève bii c' la période la plus longue au cours de laquelle on a enseigné dans l'université Alioune Diop qui correspond à la période de suspension des de, de la coordination et des amicales d'étudiants de l'université Alioune Diop. Ah, monsieur le recteur boo xoolee euh, ndongo yi li ñuy laaj mooy ñu ubbi enquête ci seen ndongo seen morom bi faatu. ñu defal leen ces deux sessions. ñu ngi laaj tamit euh, li nga xam ne moom mooy coordination étudiants yi ak amicale yi ngeen xam ne da ngeen ko teggi woon. nasaxal ko ñu tegaat ko lan moo jafe ci loolu. waaw euh, lépp euh, décision bi ñu ci fi jël instance moo ko jël. par pour problème étudiant bi léegi maa ngi kay jàllee. Euh, communauté université bi yëpp di ko jaale di ko jaale ay mbokkam c'est-à-dire ma man duma ma du ma médecin mais li ma ci xam mooy bi affaire bi amee euh, ñu foog ni mën na nekk euh, bi ñu ko posé problème intoxication bi def nañu enquête yu ci war ñu conclure ni que étudiant boobu du intoxication boobu moo ko yóbbu par rapport à yeneen décision yi deux sessions deux ni ma la ko waxee léegi ñun bëgg nañu def ren deux sessions euh, première session bi mu ngi waroon am au mois de juillet deux mille vingt donc par la violence étudiants yi naan loolu du fi amee donc cinq mois après li ñu waxoon ni mënul am au mois de juin par la violence euh, bu par la violence loolu la ñu bëgg imposer par la violence mais euh, yooyu décision yooyu ay kuréel ñoo koy jël kuréel yu ñoo nii moom fu ñu nekk nii. parce que année universitaire dafa am fu muy commencé am fu mu yem pour ñu def année universitaire ba mën a recommencer enseignement yi au mois de mars c'est-à-dire que temps bi mayu leen ñu defaat ñaari session donc loolu décision UFR yi commission pédagogique moo ci jël recteur bi mënu ci dara. léegi li jëm ci coordination bi. waaw étudiants yi. Mhm. da ngeen mhm. ko teg. masal ko. foofu fu ngeen ci nar a jëm ak ñoom. waaw c'est-à-dire euh, ci coordination bi dama leen ni aussi euh, euh, bi ñu leen installé au mois de juin ba mois de juillet étudiants yi génne nañu ñett wala ñeent plateforme amul benn plateforme boo xam ni wax na ci li plateforme bi woo si wax donc plateforme bu ne ay doléances yu bees ba ñu ñëw au mois de juillet donc bi ñu bëgg a def ay examen ñu imposé par la violence examen yi du fi amee donc ñu ñëw euh, assemblée d'université euh, assemblée d'université dissoudre euh, coordination bi dissoudre amicale bi amicale yi yi faroon nekk ci ci coordination bi donc léegi ñun dañu leen dissoudroon mais léegi instance bi dissoudroon yooyu comme ne na ci yenn kii mën na ci ñëwaat donc yooyu instance yi mën na ci ñëw mais ci li mu ñëwaat mooy euh, euh, sanction yi comme c'est ay étudiants lañu euh, Sénégal lañ nekk ay juridiction ñoo fi am su fekkee ni sanction yi ñu jël ci ñoom foog nañu ni warul woon demee noonu mën nañ dem ci juridiction euh, compétente yi euh, porter foofu plainte pour def seeni recours. boo xoolee université Alioune job bu Bambey boo fi rombee ay gémi bari nañ. ba ci mm-hmm. sax biir université bi. loolu euh, image bi muy def rafetul de. waaw c'est-à-dire université sénégalaise moo demee noonu du université Alioune Diop mooy université bu njëkk buy wootee wàllu. Euh, pour maintenir euh, paix ci ci biir euh, kër gi parce que lii aussi décision assemblée d'université li moo nii ci événement yi am le 7 décembre comme étudiants yi dañoo dàq ñu fi doon liggéey dàq étudiants yi fi bëggoon a jàng te université dafa am ay mission pour université mun doxal mission yi mu war a dox il faut que ñu def ko ci paix Euh, donc il faut que ñu rétablir condition normale euh, travail condition normale travail bi nag mooy nit ki ñëw liggéey li mu war a dem li mu war a def moo tax assemblée d'université nii ñun dañoo bëgg liggéey mais pour ñu liggéey il faut que ñu xam ni euh, c'est-à-dire am nañu sécurité pour mun kaa def donc loolu ki loi bi may nañu ñu requérir force de l'ordre assemblée d'université neema Euh, demal jëli force de l' ndax ñun ñu mën liggéey ci université moo taxoon euh, bu ñu ko laajee man ma ma laaj ko te ñoom ñu ngi fi. mais bu ngeen liggéey ci présence force de sécurité yi tamit te ndongo yi ñëwuñu est ce que dina am sens tamit recteur. waaw c' est bu ñu c' loolu euh, ñun on doit faire de que li fi war a doxal ci kër gi ñu doxal ko donc tant que kenn fitinal ñu. donc étudiants yi yaa ni nekkuñu fi mais ci ñi fi nekkul dafa am ñu fi bëgg nekk. Eh, mais parce que violence yi ñuy def moo tax euh, duñu fi nekk et par ailleurs euh, li ma bëgg wax aussi c'est que euh, bi ñu defee bëggoon def première session mois de juillet donc étudiants yi bañ ko ak doole ñun duñ ko def defuñu ko au mois de décembre ñu ne par force li ñu bañoon au mois de juillet ñu delloo ko par la même occasion ci mouvement yooyu dafa am lu ñu fi raxace rajaxe lu bëri donc man dama bëgg attirer attention étudiants yi attirer attention parents d'élèves yi attirer attention communauté nationale bi lu ñu yàq tey ëllëg nañu laajaat ñu delloo ko donc ne nit ñi fàttaliku nii lu ñuy laajaat ëllëg ñoom ñoo ko yàq ci seen violence. ñoo ko yàq. Mm. Euh, recteur tey fa mu nekk nii université Alioune boo koy dégg. Mm-hmm. tur bi rëy na. Mm-hmm. foo toll yaa ngi dégg université Alioune Diop. mais boo duggee da ngay mel ni ab lycée. Mm-hmm. ndax jotul tey ñu gën a xoolaat université bi. alhamdulilah euh, euh, bi rëy na mais jëf yi si rëy na parce que dañuy yóbbu suñu enseignant CAMES ay résultats yu baax lañ fay jëlee. Euh, ren ci euh, kames yi euh, jëlee nañ fa cent pour cent ci benn épreuve bu amoon au mois de au mois de juillet ñun Université Sénégal ñun rek ñoo ciy def cent pour cent ñuy jàllal seen seen enseignant mu ñëw au mois de doct rek mois de novembre ñu defoon concours agrégation économie ak droit ñaari ñuy jiitu ñoom ñëpp Université Alioune Diop la ñu bokk par ailleurs Université Alioune Diop aussi dégg nga étudiants yi ñuy wax lu bëri mais waxuñu infrastructure waxul ni infrastructure euh, doyul mënut doy euh, parce que euh, au fur mesure que affaire bii di di gën a màgg ñuy soxla ay infrastructure mais ni université sénégalaise yi mel ci kaw bi bu la nekk mais ay infrastructure am na parce que réhabilité nañu ay infrastructure yu yu bëri comme euh, benn kër bu ñu mayoon au niveau de de Diourbel benn mécène sénégalais ma ñu ko may ñu ngi koy defar léegi fu mu nekk nii amoon nañu problème ndox donc tabax nañu fii euh, château de boo xam ni day servir ñëpp ñu ngi ci en phase de construction ñaari amphithéâtre euh, en plus yu ñu amoon donc affaire yaa ñu ngi def ay jéego pour am gën a sakkan waaw <laughs> defar infrastructure kër gi lu jëm ci doléance étudians yi nag yi hmm. ñu teg seen kaw table loo ciy wax c'est-à-dire doléance yi ñu ngi koy defee eh, ci assemblée d'université ay décision assemblée université la décision yooyu nit munu ci ñëw kenn mënul ñëwaat ci décision yooyu ce sont des décisions d'assemblée d'université ñooñu ñoo jël euh, décision euh, yooyu ñu jël cest dire ñoom décision yi ñoom ñoom rek ñoo ko mën ñoo ci mën dara. ma fàttali ñuy doon euh, dalal recteur de l'université Alioune Diop bu Bambey professeur Mbaye jaw professeur ñu ngi lay jërëjëf. maa ngi leen di remercier